l'avènement d'un nouveau président de la République l'honneur l'action qu'ils ont pouvoir changer durablement Sénégal. Au nom de la côté Sénégal confiance chaleureuse monsieur Bassi Diomacar Faye dans mission carte exaltante et c'est à importance puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour dans le cadre effectivement de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble le programme qui s'intitule Pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions J'ai dit la dernière fois, lors de la conférence, de la, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune là où il se trouve, que ce projet est le sien. et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation. Le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye, lui témoignant le garantissant de notre loyauté, mais notre dévouement également, en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort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 di leen sant di dellu gërëm président Bassirou Diomaye Diakhar Faye asalaamualeykum wa rahmatullah